nga li nga wax ni moom question bi daa nekk loo xam ne lu neex la neex laa la ñun dañoo toog lu mot ñaari at yoo xam ne dañoo toog waxtaan bu ngeen fàttali ko am na benn jour président de la république invité ñu mooy bi ñu bi muy wàññi prix yi ñun demoon nañ fa mhm. am na décision yoo xam ne daf ko bëggoon a jël bi ñu ñëwee Assane Bissou bi mu jëlee mooy président fédération bi maa ngi koy au passage mu ne ko yow président ministre de commerce lii nga xam ne moom la wax ak yéen lii ngeen wax bañ koy nos ñun fekkeewu ñu yëguñu président jël suñu yi jox ko Amadou Ba ne defal enquête ci lii wax ci ñu dig ñu fa benn un milliard ba fii may wax ak yow laa wax de cent franc gisaguñ ko. Hmm? benn un milliard laa wax de biir palais te loolu war nañ cee def attention kaddu kaddu kilifa naka la ma doon. un milliard bi ku leen ko dig. mu ñoom. ñoom ñan. état guy wala Dakar. non état état. président moo wax da leen di jox quatre milliards. un milliard un milliard du moins. un milliard la ñu wax ne moom la ñuy jàppale accompagner ferrailleurs président moo wax ngeen dégg loolu. waaw Macky Sall moo wax ñu dégg. ñun fa lañ nekkoon ñu ñëpp te ñun sax soxlawuñu loolu. xamuñu eh, ñaar ñaata ngeen ñaata ngeen au total. non ñun bëri nañu waaw mooy question bi Kajoor posé dama ko bëggoon a tëb mais xam nga moo ci gën a am solo ñun dañoo booloo nekk benn am fédération ak union Assane Bississi mooy président bi da nga wax ci baax boo demee ci union euh, Ndiaga Diouf mooy président ak Cheikh Diop secrétaire général mooy les deux sénateurs. Euh, sama dossier bi boo ñëwee boo ko gisoon di leen fa gis yaa ngi dégg kon booloo nañu ba wax ba nekk benn amuñu benn jafe-jafe mais gis nga question bi ngay wax ne moom la ñuy indil ñoom xam nga la ñuy wax. Mm. booloowu leen da ngeen fàcjaloo ñii dañoo jaar fii ñii jaar fële 14 saisons yëpp laa wax de ñu ngi ci fédération xam nga kan moo leen jiite ñenn yi. Mm. daaw daf fay mu ngi nekk mbëbës. fii may wax ak yow ci biir Sénégal 14 saisons yi boo fa dem képp woo dem am na président bu fa dem.